الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سن بوك إمام عبد العزيز نجاي bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey jeudi 14 octobre 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk suñu audio numéro 251 ci suñu jotaay bi passé ñuy ngi woon ci aaya numéro 7 bu sóoratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jàngatoon ci ne jullit bi Euh, dafa war a def yitte ngir di def loo xam ne mën na dooleel lislaam ñu waxoon ne bu ci kenn xeeb boppam di def loo xam ne mën na dooleel lislaam yaa ayyuha allazina amanu bi ci topp mooy aaya numéro 33 ci suuratu muhammad ba léegi borom bi allah subhanahu wa taala di ci di delsi ci ay ay recommandation yu muy defaloon ca kaw ay yu ñu defaloon ca kaw muy mu ne ñu borom bi mu nañu nañu nañ koy dëgg nañ koy dëggal moom nañ koy dëggal nañuy dëggal yàlla di dëggal yonent bi di obéir à Allah di obéir au prophète déggal yàlla ak déggal yonent bi defoon nañ ci waxtaan mbokk yi déggal yàlla jagleel nañ ko audio numéro 144 yaatal nañ ko déggal déggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jagleel nañ ko audio numéro 145 yaatal nañ ko itamit moo tax dañuy continuer ubbi sunu kaamil jàll ci yaa ayyuhallazina amanu bi ci topp mooy aaya numéro un bu sóoratul hujuraat sóoratul hujuraat mooy suraat numéro 49 wante nag dañ ci boole ci njàngat bi dañ ci boole aaya numéro 2 dañuy boole jàngat boole boole leen jàngat aaya numéro 1 ak aaya numéro 2 bu sooratul Hujuraat ndaxte ndaxte ñaari aaya yi euh, ñoo bokk li ñuy wax ñaari aaya yi ñoo bokk li ñuy wax ñu ngi wax ci mbirum teggin teggin jëmale ci borom bi teggin jëmale ci euh, yonent bi moo tax ñu boole leen def leen benn jàngat ci aaya numéro un ak ci tàmbali aaya numéro deux bi lii la borom bi allah subhanahu wa taala wax يا أيها الذين آمنوا لا تخدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا laa tarfa'uu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharuu la ila aaya ba aaya ba ba aaya ba jeex borom bi mu ngi wax ak jullit yi nga xam ne ñoo nekkoon ak bi saaba yi mu ne leen buñ di jiitu yonent bi buñ di jiitu yàlla ak yonent bi mu ne mu ne mu ne saaba yi bu leen di jiitu yàlla ak yonentam bi te ragal leen yàlla moom mi nga xam ne mooy aji dégg moom mi nga xam ne mooy aji xam maanaam saaba yi borom bi mu ne leen bu nekk ci situation ba situation boo xam ne euh, aaya wàccagu ci bu nekk ci situation boo xam ne aaya nekkagu ci ba ñuy yàkkamti ba décider di euh, jëmee jëfee seen xel kon borom bi mu ne saaba yi bu ñu jiitu yàlla ak yonentam bi maanaam bu nekk ci situation boo xam ne aaya wàccagu ci ñu yàkkamti ba di dem di jëfee seen xelu bopp euh, aaya bi bi mu wàccee Seydina Omar ci la décidé ne moom dootul dootul wax dootul joxe point de vue am tant que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko parole Omar lañ wax de mbokk yi te Omar mooy ki nga xam ne daanaka moom rek a ko am Omar ñetti yoon taarix indi na ne ñetti yoon Omar joxe na gis-gisam borom bi indi aaya dëggal li Omar wax ànd ak Omar Omar am na tolluwaay boobu di joxe point de vue di joxe xalaatam alxuraan ñëw dëggal. gis-gisam waaye xoolal malgré Omar bi aay bi wàccee Omar dafa décidé dafa décidé ne dootul wax dootul yëkkati kàddu tànk yonent bi joxu ko joxu ko parole Omar bun Xattaab moo am attitude boobu ci aaya numéro 2 bi borom bi allah subhanahu mu ngi wax saaba yi tamit mu ne leen bu leen di yëkkati seen kàddu ba mu féetoo kow kàddu yónnent bi seen kàddu bu mu di di foor kàddu yónnent bi su ngeen di wax ak moom bu leen yëkkati seen kàddu faf sax su ngeen di wax ak yónnent bi na ngeen wax wax ju tey bu leen di wax ak moom comme ni ngeen di waxee yéen ci seen biir ji nga mbokk yi recommandation yii lii la borom bi digal saaba yi borom bi daf leen di digal yar teggin ak discipline yar ak teggin ak discipline jëmmale ci yàlla ak yonentam bi mu yitteel mu yitteel ñu nag mu war ñoo yitteel ñun ay tamit mu war ñoo yitteel ñun itamit moo tax ñu war a xam ne disiplin bi gën a rëy mooy taxwa ragal yàlla borom bi lim digle recommandation yi ñu def ci sunu kéem kàttan lim tere ñu ñu bàyyi lépp boole ko nag ak rafetal bañ xamee ne borom bi allah subhanahu wa lépp lu ñuy def mu ngi koy gis lépp luñ koy lépp lu ñuy wax mu ngi koy dégg su ñuy xalaat sax suñuy xalaat sax mu ngi ñuy dégg discipline bu mag baa ngi nii mbokk yi ragal yàlla ci tënk am discipline jëmale ci suñu borom allah subhanahu wa taala mooy itamit laataa ñuy dugg ci mbir ñun jullit war nañ xam lan la ci boroom bi wax bañ di doyloo suñu xel ak sunu bakkan lii bokk na ci discipline bala ngay dugg ci mbir nga xam lan la ci borom bi allah subhanahu taala wax bañ di demee rek suñu ay xalaat yu rafet parce que mbokk mbokk ci xalaat mun na rafet de xalaat mun na rafet waaye du ad mais mais mais mu waroo ak li ak li yàlla wax xalaat lu mu rafet rafet rafet rafet lu mu jub jub jub su méngoowul ak li borom bi allah subhanahu taala wax dañ koy teg ci suuf waaw waaw am discipline jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu doyloo njàngaleem ñuy doyloo njàngaleem ndaxte moom borom bi allah subhanahu wa taala moo ko formé yonent bi buñ fàtte loolu borom bi allah subhanahu wa taala moo formé yonent bi pour mu jàngal ñu moo ko formé ba pare jox ko programme bi muy jàngale kon discipline pour jullit bi mooy mu fas ci xolam jàpp ci xelam ne njàngale yonent bi njàngale mu mot la sëkk amul lenn luñ ci mën a rectifier amul lenn luñ ci améliorer am discipline jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci tamit ñu teg ko place moom yonent bi place mooy fan mooy ci sunu xol mu gënal ñu sunu way jur ak sunu njaboot discipline jëmale ci yonent bi mooy ñu teg ko place am ci sunu biir xol nañu gënal sunu ay waajur gënal ñu sunu njaboot bokk na bokk na ci itamit ci discipline boobule jëmale ci yonent bi ñuy màggal turam fu ñu ko déggee fu ñu déggee muhammad wax sallallahu alayhi wa disiplin la boo xam ne bénéfice bu fees dell la ñoo ci ñoo ciy am intérêt ñoo ci am ñoo ci am intérêt parce que intérêt bu rëy la ci ñun avantage la bu rëy ci ñun ñuy julli ci yonent bi fu ñu déggee turam rek ñu ne sallallahu alayhi wa sallam discipline la waaye discipline bu bu bëri njëriñ ci ñun kon mbokk yi yàlla nañu yàlla def ñu nekk ay jullit xàqan yu am yar am teggin ay jullit yu discipliné subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala sayyidina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam